maar lii lan la. yow laa koy laaj. papa jëlal say matukaay jëlal say matukaay papa. kenn ci kër gi bu ma tuddee ci wax ji dinaa ko diggaale ak moom ba mu saf nag avertir naa yow xam nga ma man kër gi soxna Batoor rek moo fi am fii def yi fi bon yooyu. yow kan moo la soxna Batoor bu dul soxna Batoor kan la kan mo saña def yu bon yi ci kër gi. ñetti jek nek ci kër gi ak sa jabaru ki nak ana mu fantasy di Fanta fan la nek feneen fu du ci néegam.